benn saak yaa ngi yaa ngi juuru nga bëgg continuer di ko def mi xel mënu ko nangu yo yéen si seen bopp sax je dis quand euh, li ma mën a wax mooy euh, euh, du ngeen xalaat ëllëg di dugg ci benn secteur boo xam ni loo ci dugal sa xaalis da ko doo ko fa fekk xewul fenn xel mënu ko nangu interpellation yi euh, euh, bëri na Pape mi ngi woon si lii euh, perspective mais loolu mën nañu xaaragum mais ci li muy li muy li muy wax la ñuy la ñuy dellu si parce que bu ñu xëyee taxaw ñoom itam ne mënatuñu li ci ànd yëpp moo bëri ñi nga xamante ne tey ñu ngi bokk si tissu économique bi te bu ñu bàyyee chômage ba dana yokku ñeneen itam danañ ca loru te état bi war a mën a trouver consensus ak ñoom ngeen toog seetaan leen ñoom itam ñu dakkal waxtaan bi euh, ndax nit yi dañuy toog itam di subir conséquences yi noonu. waaw bul wax ngeen toog seetaan leen parce que wax naa la ne kenn seetaanu leen. bu ñu géddee nu ngeen di def. ñu ngi réunion boobu ba léegi moom kay bu rupture de dialogue amee ci ñoom la. bu kenn toogul ca banc bi kan ngeen di waxtaana non ñoom ñoom ñoo def rupture mais ñun ñoom xam nañ ne bañ nañ ko ba wax naa la sànq ne la réunion de haut niveau la ñuy def. parce que réunion wu ñoo kii ñaari ministre yi ñooy toog ak ñoom ñu réunion imaginez un état ak contexte bi fi mu toll état am na besoin en financement yeneen di secteur yeneen di secteur mais lii fi jaar dama rappelé ko sànq secteur yëpp la la amul benn secteur bu mu épargne laal na boulangerie laal na meunier yeneen i secteur boo demee artisanat ba ña fa fay fu ne la la donc amul kenn ku mu bàyyi état ne ñaari levier la am muy TVA 18 pour cent la woon moom lañ doon fay état nee na ma yóbbu ko 6 pour cent ñu ne doyul mu yóbbuwaat ko 0 pour cent donc TVA bi 0 pour cent ñu ne waat de douane lañ doon fay état bi ne leen def naa ko 0 pour cent donc ñoom fay ñu dara. zéro ban impact ne nous profite pas. kooku rek waaw <laughs> d' abord. kooku moom. ñu suñu poos. parce que nee na lii. teelu musa am mais dañu fàtte 2014 2015 ñoom jaay nañu mille francs quinze kii mille francs ñoom seen bopp ñuy guerre kii rappelé na ko léegi guerre des meuniers mais booba <laughs> booba boulanger yi aussi foofu damay jaaraale tontu leen mais est-ce que ba ñuy jënd ñoom 14000 waxoon nañ nañu wàññi mburu fañ prix bi fa mu nekk fa lañ ko téye wàññiwuñu ko tey ñu yaakaar ne peut-être am na perspective yokk ñoom it ñu ne dañuy yokk kee 18000 yi ñii di laaj ma ñëwee. déet defal naa nga rek dama eggali parce que bu ma nee 18000 parce que 1000 wax naa ko sànq. ne leen euh, voilà 1193 dañ leen koy defal crédit d'impôt. Mm. ca réunion ba ñu ngi nii. waaw mm. ah. léegi ñu ne ñu defal leen 18000 même bu ñu leen defaloon 18000 mm. boulanger yi waruñoo wax ne dañuy yokk parce que structure bii ñu defar. Mm-hmm. prix mburu bi bi ñu koy calculer dix-huit mille lañ ko calculer woon saaku fan donc dara yokkuwul yokkuwul ci boulanger yi ñoom waruñoo wax boulanger sax warul wax wax yokk ensuite est-ce que sànq euh, abu wax na ko est-ce que dañuy nekk ci tyrannie yi blé bi comme ça mu ñuy c'est vrai on est en phase expérimentale avec ISRA on est d'accord mais pourquoi ñoom ñi secteur bi demee na noonu ñu orienté wu ci céréales locales yi. mais kuy orienté wu. di ko ci def waa xaaral kuy orienté wu. ci la bokk su investir euh, kilifa yi tamit jàpp si yombalal ko pour liggéey bi man mais bu fekkee ñi dañoo investir. mais ku la euh, defal zéro pour cent partout. waaw mais defaluñu leen ñu vingt zéro pour cent mais nee na ñoom sentiruñ ko si si. mais mais déedéet dama lay wax ne man tey jii par exemple sànq nee na am na fu nekk trois cent quarante. euros laa toj. man sànq dugg naa à Rouen par exemple deux cent quatre vingt dix euros laa toj <laughs> mi ngi nii mi ngi nii mu naa la ko wax. non non non. Euh, euh, xam nga xam nga li ñu wax. li ñu wax li ñu wax mooy ah ñoom ñëpp bokkuñu fu ñuy jëndee parce que lii du lu bees xam nga boo taxawee nga ni état lii laa bëgg ñoom ñoo ko wax état tam ne leen lii laa bëgg. yéen ngeen ne vérité des prix état ñoom dañ ne vérité des prix lañ bëgg état ne leen nag vérité des prix naam d'accord mais yéen kenn ku ci nekk daa war a am prime parce que kee bu amee deux cent employés kee am cinquante employés kee am cent employés ñu bëgg a tolloo prix te bokkuñuy charge bokkuñu dara. non euh, euh, mais bu ñu nee dix huit mille ñoom sept yëpp dañuy aligné ci dix huit mille. te d'abord dans une économie normale. Mmh. mënuloo am sept meunier yu ànd c'est pas possible mënul nekk c'est pas une économie concurrentielle te loolu mooy doxal réew ba ñu fi amee benn yi gis ngeen ko na mu meloon ba ñu amee ñett gis nga ko donc ñun bu tey jii bu fekkoon ne état bi deful ay effort bi du ñu am set meunier mënul am non man parce que fii mu te am na ñeneen ñuy ñëw am na ñeneen ñuy ñëw meunier yi dañoo warul te approvisionnement rien ne les empêche ñu dem Tunisie. tey jii tey jii proposé nañ ma Tunisie mais d'abord da ngay seet fu prix gën a baaxee. blé tendre la ñuy jën moom la ñuy def ci kii bi ñu dem fa mu gën a baaxee Tunisie mën nañ fa am mois te 21 jours lay def mu ñëw donc li ñu bë mën a wax bëri na. non man man man man dama ci jaaxal ci ci ci ci ci li nga wax ne parce que am lu ma ci échappé soo may wax ne ma. Euh, euh, euh, état bi def na ay effort pour que ñu am cette meunière ci biir wax ji su ma lay dégg c'est comme si amu leen possibilité réguler le secteur cest à di téye ko de telle sorte que ngeen mën a xam réellement ñii ci li ñuy opérer lan la si que soo may wax ni c'est comme si waaw da ngeen di dem benn moment bu ngeen demee ba mu échappé da ngeen waa ah lii mënul nekk c'est-à-dire waxtaan bi ci ñoom li ñu proposé yan lan ngeen teg à la place au delà de li ngeen wax ay renoncé nañ ci taxi nangam ba yëguñu ko. Ousmane le secteur ne nous échappe pas. c'est contexte moo dugg ñëpp nañ ko li xew xam nañ ko. parce que ñoom dañ koy jéggaani fa lañ koy jëlee dañuy échappe mooy. non non léegi que dañ leen di bàyyi ñoom ci activité bi ñu def. parce que état ñuy à perte. Cissé te yéen ngeen xam ko. Cissé par rapport ak loolu état pour entreprise bu bëgg a implanté wu au Sénégal nga implanté. non Cissé minoterie bu bëgg a ñëw nga ñëw. suñ mënoon def dix quinze danañ ko def parce que. rien ne nous échappe dans ce secteur. moom xam na ne wax na ko. xam nañ bu jaw neenu nañu bàyyi di jëndi France wala Ukraine di dem Tunisie ñun ñu am ay chef ñu nekk ay chef d' entreprise war a xam fu ñu war a jënd mu gën a yomb. moom mu bëgg ñu jàngal fu ñu war a jëndee ji blé xam nga nag loolu <laughs> xam nga loolu nag da ngay xam ne ñu ngi ci biir politique parce que ñu lu jaatu parce que nag ku nekk ci secteur dem ba investir ay milliards war nga xam fu blé war a gën a mën yombe ak blé bu gën a baax suñu wóoroon ni ñun blé ba nekk Tunisie moo gën a yomb moo gën a baax gisuma lu tax chef bi du dem jëndi foofu pour marché xam nga am na lu xel mën a nangu ak lu xel mënul nangu donc mi ngi ci non xam nga euh, man dama jàpp ni tey kuy naat kuy naataamle que blé mi ngi wàcc de par le monde je m'inquiète tey nga ni blé di maïs ni tourteau de soja autre amu ci benn boo xam ne mi ngi à la baisse au contraire mi ngi à la et juste et jusqu'au et mois de mars. bu yokkee tamit du benn. prix yi ñu ah? koy jaayee même bu yokkee ni ñu koy jaayee du benn. mais mooy li may wax c'est-à-dire que xam nga tey bu fekkee ni da nga nekk en industrie saa yu nekk da ngay nekk sa écran di seet fu mu gën a yombe ñun bi ñuy discuter ak ñoom dañ ñu laaj kayit yi nga xam ne mooy justifier li ñu jënd yëpp ñu def moyen pour mun a fixer benn homologation loolu moom sa xew depuis joxe kayit bu baax sax xam na ko nee na merci merci Aram euh, dina revenir mais même am na lu am solo lu mu wax man loolu rek laa ci dégg dinaa mooy ne yéen yokk ma waroo leen ko wax sëriñ li ma ko waxoon pour ngeen bàyyi seen xel maanaam le ministre le ministère du commerce lii bu ko dalu doon du ma bett xam nga les fonctionnaires de l'État des fois dañuy foog ñoom rek ñoo xam peut-être ñeneen ñi jànguñu peut-être ñoom lu ñu gis wala lu ñu désiré loolu moo baax dama ne à l'époque li leen sonnal ni à l'époque du temps de Aliou Sarr ministre du commerce ba muy recevoir meunier yi ñuy def entente ñoom sept meunier yi pour di jaayandoo même prix à l'époque la FA la FNBS l'avait dénoncé que loolu nekkatul économie concurrentielle on l'avait dénoncé à son temps ils ont laissé faire voilà les résultats d'aujourd'hui dafa am foo xam ne nit naa ci ànd ak sëriñ meunier yi mënuñ nekk sept meunier bokkuñu charge bëgg a yem li ñuy jaayee. dina mel ni mu ñëw en fait. bon euh, loolu lu ma ci ma wala wala benn groupe la bu mën a jël affaire yi monopoliser. may loolu lu ma bëggoon leeral rek la ci seriñ donc foofu. bul fa bul fa bul fa bul fa sauf que yaa ko ñoom mën nañu ànd. beneen bi. Euh, boulanger ñoom mën nañu ànd beneen beneen bi même meññee yi waruñu mën a ànd beneen bi en 2014 2015. kii wax <laughs> ne meññee yi dañ doon def. mun naa ko tuddee guerre des meuniers entre parenthèses ñuy jaayee farine bokk ñoon prix ñuy jaay dangay dem ci meunier bi mu jaay lii kiy jaay kii jaay lii ñuy jëndee farine quatorze mille quinze mille treize mille Serigne di que ñun wàññiwuñu mburu mais dama bëgg xam ne ñun Sénégal dañ nekk ci régime d'homologation boulanger du fixer prix mburu du fixer poids pain kooku se le role de l'État ak prix wu farine ak prix farine. waaw moom itam la yóbbaale kooku yoonu yoonu kooku état la du ñun. beneen bi abu euh, li nga wax sànq sa euh, daf ma ça m'a touché droit au cœur dama jóge sànq ci benn émission secteur de la boulangerie état daf ñu war a yërëm jàppale ñu ñun dañu sonn c'est plus de six cent mille personnes qui gravitent autour de la boulangerie sénégalaise sama yaay sa yaay yaayu keneen famille suba teel ñoo yor si ñoo wër kër yi ñooy inscrit xale yi ñu jàng ñoo leen di jëndal fourniture ñoo leen fayal seen doomi université ci mburu mii lañ koy amee donc je pense que le pain est un produit social foofu man su may wax du mu wax la lii dafa jéggi ministère di commerce wax ji dañ koy wax mu leer lii le président Macky Sall rek moo ko mën a régler ah ministère dafa am fu mu yem Serigne Diaw miy toog ak le directeur du commerce Omar Diallo il était le chef régional du commerce juin 2019 lii moo ko si moo ko moo ko jiite liggéey bi priculture du pain en 2019 gis nga ñoom si ça ne dépendait que de mburu yokk na farine yokk na mais ndeyu mbi gi mooy le président Macky Sall te le président soo gisee sa njaboot di sonn meññee ay sénégalais lañ boulanger ay sénégalais lañ jël seen alal def ko ci réew mi. population yi tamit ay sénégalais il parle de ko maa ngi ñëw foofu. il parle de 1300 quelques emplois directs 15000 indirects nous nous sommes à 30000 emplois directs 40000 indirects 600000 de gravité autour de nous nous produisons 8 millions de baguettes par jour près de 500 milliards de chiffre d'affaires par an nous participons à du PIB national kon ñun état daf ñu war a jox gëdd muy ñun muy meññee. Hmm. c'est ça la réalité mais le président daf ñuy seetaan si ça ne dépendait que des fonctionnaires du ministère commerce. mburu mi yokk na parce que xam nañ ne ko ce sont des agents assermentés de l'État dañu waat lii ñoo ko gis mais mu ñu yokk mburu tant que le président décidé wu ko c'est ça la réalité. nee na est-ce que dañu dañu may ma ma daane dañu dem jam ñaajo bi après ces travaux là Claude était là-bas tout le monde était là-bas pour def restitution des travaux Ousmane Mbaye était le directeur du commerce intérieur. Mm. ministre baa ngi toog ñu commencé projet projeté affaire yi keroog le pain devait augmenter le ministre sort téléphone. kilifa bu toll ni ministre. Hmm? nga woo ay nit ñu toog réunion. di projeté ay travaux xam ne on a fait presque deux cent et quelques réunions. nga génn ministre génn téléphone di wax pendant trente minutes une heure de temps bàyyi ñu ci biir salle bi kan moo ko waral lu le président de la république su wax dëgg jotee dañ koy wax. c' est président qui n'a pas voulu que cette augmentation là il y ait nag li Claude wax dinaa ko rejeter maanaam que les pouvoirs publics jël leur courage en main jàkkaarloog askan wi xamal leen ne contexte bi lii la farine munatul jar lii mburu munatul jar lii c'est ça qu'on attend du président de la République wala du ministre du commerce beneen solution te ministre du commerce jox na wax nañu lool si ses réunion maa toog mu toog avec tous les présidents de région mu ne ñu bu ñu say yeggee moom dina def courage wax président wax ak consommateur yi xamal leen ne farine mënatul jar lii mburu mënatul jar lii mais yaa xayti mu la mais dëgg dëgg rek la ñun mënatuñu nekk di sonn on est fatigué muy meññee muy boulanger c'est ça la réalité. ñu sonn euh, finalement euh, c'est comme si dañuy tuur nit ñi lëndëm. non mais li gën a grave sax ñu ngi ñu ngi wax mais on dit pas waaw li ñuy fàtte. mooy mooy mooy euh, démocratisation pain mburu tout le monde n'est pas accessible lu gën a grave au Sénégal. c'est pas accessible à tout le monde à toutes les familles. loolu lu ñuy bàyyi ñàkk bàyyi xel la mooy ñun ñu nekk fii ci zone urbaine yi ñoo am sens am mburu fii ngay gis voyage bu amee ñu yàpp mburu ci ay oto ak i ba ci ba mu kawee ba nit ñi di ko tooñante am na des village ak yenn dëkk yu nekk ci àll bi mburu luxe la foofu pour wax la ni rek ci ci ci respecter population nga xam ne mburu première xam nga denrée première nécessité boobooy première première boobooy super priorité parce que problème mu ndékki rek clause de stabilité ci kër ndekki daf koy indi ci ménage ci famille ci lépp mooy mburu ngay njëkk dalalee xelu nit ki ci famille li ma la wax dama ko xam mooy c'est un secteur boo xam ne lii ñu jël DER boo ko créé nga def ci des milliards créé fa ay directeur cabinet créer fa ay conseil technique conseil spéciaux créé fa ay projet ñiy defar boulangerie en général ci daara ji la ñuy jóge wala ñu jóge fële ca tool ya di bay investir góorgóorlu ñëw ba teg kooku boo ko encadré beneen structure bi may bañ a tudd seen tour parce que sponsorisé wuñ duñ publicité ni ñu def ñoom ba mën a ñëw def ay boulangerie def ci ay pâtisserie def ci ay leneen suñ ko dooleeloon seeni doomu Sénégal ñu def ko et pourtant ñooñu secteur emploi bi ñuy yem bu ñuy mën a créer ci biir boulangerie dafay bari parce man gis naa ay boy yu dem di si pat ñiy jàpp ak ñi nga xam ne ñooy defar pain au di dëgg la condition yi des na parce que liñ leen di fay baaxul mais quand même sonn nañu ci buntu boulangerie rek da gis créé emploi yi fay créé wu maire Ndambe yi ñiy jaay sandwich ba pare attention guddi gi ñi reerul ñëpp buroo leen di sauvé <laughs> parce que mburu rek ngay mën a jël calmé wu crise bi am fii loolu la léegi nag loolu mooy état du ah, Sénégal mënul gis secteur boobu ba pare di foowee secteur bu xam nga li ma gëm li ma gëm te gëm ko mu ñii du ma leen wax dara parce que ministre politique industrielle moo amul xam nga état du Sénégal Macky Sall mënul jël ministre de l'industrie boo xam ni tagal mbaxane rek la mën ak dem campagne Louga mosuloo fekkee ministre de l'industrie boo xam ne ni mën na taxaw deux heures de wax wala mu jël de programmes wala mu anticiper li ñu wax ci problème ISRA bi directeur de l'agri ministère de l'agriculture wax nañu lii maladie émergente ak réémergente ñu ne la ñi ci àdduna bi ñu ngi tëj li ñu yor ci blé excédent yi la ñuy génnee. dem nañu ba yor ba mu ba mu bëri joxeetuñ ko. dem nañu ba joxeetuñ. nga toll ci ah secteur boobu war nga mën a waxtaan ak meññee yi am nañu ay RSE nu ñu mën a contribuer ci centre yooyu de recherche yi nu ñu mën a contribuer ci école yi nu ñu mën a contribuer ci seen i RSE ñoom it aussi ñu bàyyi RSE taf yëngu yëngal yooyu nga xam ne dañuy jënd benn ambulance yóbbu fële dem kër sëriñ bi joxe ñetti mbuus ñetti saak ñuy def des RSE yu am doole ci l' et les bourses permettre à aux jeunes ñu génn dem à l'extérieur jàngi expérimenté wu loolu aussi ñoom it nañ koy def parfois souvent les entreprises yu mag yi mel ni meunier yooyu parce que man seen seen booloo bi seen booloo bi je l'explique pas parce que bu dee état du Sénégal politique industrielle amu ko te champion yooyu nga gis en général ñu ngi démarrer ci benn comme li ma wax ci Ahmed Amar benn unité la ñuy démarrer dem ba trois unités kenn du leen fa fekk ay banque fii Sénégal xam nañu fonds si ak fonds yooyu ay tur la rek yu ñu tudd parce que ay lañ fa teg donc pour li am ni ci ministère bi man gis naa ne ministère yi ngi def effort. parce que bu ñu demee bu commerçant yi mënootoo leen contrôler mu am anarchie. c'est parce que personnel bi doyul seen équipe doyul les réclamations doyul. mais duñ ko wax ñoom ministère bi fa nekk non ministère bi fa nekk na ko mais mais xamul wax moo tax ñun nag ñun ñoo koy wax. li am solo non non non non dafa am loo xam ne xam nga sànq xam nga sànq abu bu ma doon wax baal ma daguma la xam nga ma doon naan nañ communiquer vrai dafa am lu tax parce que sànq li nga wax ci ministre nangam c'est-à-dire suñuy performance publique suñ koy évaluer foofu la yow da nga ni mën naa ñu jox la nga tànn am administration bi lay gunge bu ñu demee évaluer ñu gis ni pourtant bu ñu la évaluer nga nga échec du ñu gis ne sa carburant moo manqué du ñu gis ne fay ñu la weer fay nañ la ko ba jox la indemnité mu des nga war a liggéey ñu natt say performance publique gis ni yow yaa gën a yées ci ñëpp mais xoolal ñaata yoon la conseil de ministre am président Macky Sall di wax ne je veux un gouvernement combattant waxu ko barki démb su ko wax lan la ñan la ko doon wax pourtant du man du man a yow ñàngam ñi ñu dénk ñu war a doxal la moo tax suñuy wax nii yéen ñi nekk administration am xam-xam te ñuy liggéeyloo ñoo war a véridique ak askan wi mooy bu ñu leen dugal ci li nga xam te ne kilifa gi dafa toog fële bu bàyyi leen ngeen di xeex xam ni moom la te moo war a joxe ay instruction ni ñu leen di jéggi ba mu dem benn moment boo dañu war a taxaw nag waxante dëgg foofu la ñuy woo invité ñëpp moo tax ñuy ñëw di wax nguur on donne l'impression que ne dañ koy fekk na loolu mooy ni liggéey bi bu ngeen ko yombalal ni ngeen ko joxee ngeen defee ko noonu coow du am. mais bu tàggatee mbéy mi te mun leen yéeg ci ki nga xam ne moo koy rek war a fay daal secteur privé bi gis nga état du joxe emploi nañu bàyyi yi ñuy def nii nim daam Diop di def ak ñoom ñoom ñoom jataraak euh, Néné Fatoumata Tall wër yooyu ñuy wër di yokk ay contrat eaux et forêt UCG ngi liggéey liggéey bi yëpp nañ ko renforcer wala ñu bàyyi eaux et forêt concours yi jaar fa gis nga secteur privé Maroc dafa respecté secteur privé jox ay banque am ñu dooleel secteur privé Sénégal secteur privé bi dafa mel ni noonu état bi la wala dafa mel ni secteur privé bi ñi ci nekk seen wet di leen dimbali politiquement rek la ñu respecté secteur privé mooy joxe emploi boo rombee buntu NMA da gis <laughs> booy rang boo demee euh, fii nii Grand Moulin da ngay fekk mu fees dell non mais c'est des grandes industries yoo xam ne day fees dell ak ay ñu toog di xaar

quand même sept meuniers yi ma gis man dañu investir quand même beaucoup d'argent beaucoup d'argent dans le secteur je, je parle rek récemment de de Cheikh Al Amin bi dugg ci industriem industriem dem fay lakk noonu état di ko seetaan te muy takamul ful te industrie la boo xam ne ñoo fa nekk mais état du Sénégal fi mu bëgg a def xaalis mu ngi ko fay def de les institutions budgétivores organisation des élections bëggul liste unique parce que dafay joxe ay marché des milliards ci imprimerie koy de contrat yi mu jël di ko jox ay boy politique am di leen ko signal ay contrat mu ngi koy def de assemblée nationale seen bi ñu yokk seen avantage yi ñu ngi koy def de bu mu bëggee jënd avion jënd na avion li mu bëggoon def yëpp def na ko bu bëggee secteur privé bi développé fédération des boulangeries aussi il faut que tamit liggéey bi la li kiy wax dëgg la yéen da ngay gis Amadou Gaye rek ak waa jooju yéen <laughs> seen fédération bi yéen rek la ñuy gis nag li ngeen reproché ñi moo am ci yéen. ñëpp xamee nañ Amadou Gueye. man li ma jaaxal mooy. loolu aussi tamit c'est à revoir. alors Abou ah, s'il te plaît Abou Abou Abou c'est un passionné <laughs> dafa am deux choses yoo xam ne bëgg naa ñu taxaw si. Mhm. les assises de la boulangerie 2017 la woon. ñoo ngi 2021. moytu leen li dal code de la presse bi dat leen. parce que mënuñu fexe ba jëmmal ko. foofu laa doon ñëw euh, euh, yow Serigne. balaa ñuy génn wax ñu ñu leer mbur bi day yokk wala du yokk. waaw li ma lay wax xam nga man. fii parce que ñii moom ni ñu waxee leer na si ñoom. maanaam yokk bi c'est inévitable fii ñu toog nii su fekkee ne débat bi liñ ci wax nii benn yokkute amu fi. du am. non suba xaw ma ko suba suba yàlla la. Ah, ce que je peux dire mooy ñun am na lu ñu leen laaj ay documents lañ leen laaj. nañ ñu jox document yi ñu bokk toog. mais document boo ne jox nañ la. ñu déedéet déedéet parce que moom wax na ci waxam sax ne dañ daan def prix moyen. mais ah, yow boo taxawee ne état. non xam nga vérité de prix laa bëgg ma yeggali rek vérité de prix laa bëgg. état tam ne la man itam vérité chiffres yi may jox laa bëgg yow da nga koy saytu ne lii mooy sa vérité état tam ne lii mooy vérité ñu teg ko su ñu demee ba xool xam ne lii. mënta ñàkk ñu xam ne fii lañu war a jëm ñu def ko xam nga sànq euh, am na ku ko wax le département du commerce ñu noon naa pas de problème de résultat hmm? fii may wax suñuy résultat atteindre nañ ko buy yàgg pour année bi parce que man je suis au cœur du dispositif li ñuy def lépp xam na lii impulsé département bi ci laa bokk donc fi mu toll nii buñ ñu tey jii bu ñu ñëwoon di ñu évaluer satisfait si la ñuy am. le département a été bien géré. waaw ma sañ ko ma nañu lépp parce que damay excité assainissement bi boulangerie bi ma tontu la ko mën a laajee ci ni ce que yéen a ngi dëgg askan bi. gis nga département bi li ñuy communiquer kenn du ko communiquer. te dañuy jàkkaarloo presse bi communiqué vrai toujours non rus nañu di ah, wax loo xam ne du dëgg man rus naa ko li ma lay wax dama koy fu leer laa koy teg te moom laa lay wax te looloo am boulangerie sànq wax na ko cinq cent milliards de chiffre d'affaires trente mille emplois direct sànq abu wax na mais six cent mille acteurs ñoo ci nekk ci boulangerie bi huit millions de baguettes par jour di contribuer à de trois pour cent dans le be kooku xam nga du secteur bu ñu war a caaxaane. ngeen continuer di importer blé bi rek. Ah non boulangerie farine bi. gis na ñoom bi ñu demee amoon nañu beneen euh, décret bu fi nekkoon ñu daal di ne ñu am problème ñoom seen biir parce que ñoom seen bopp ñoom ñoo doon euh, reyante. concurrence baax na naa mais il faut mu nekk concurrence saine mm. et bi ñu demee ba xam ne mënuñoo dem lu ñu wax def nañu plus de deux cents réunions concertation assise de la boulangerie plus de deux cents réunions ñu ne lan la ñu ne il faut ñu defalaat réglementation bi moo ñu sonal non sérieux non bàyyi ba ma yeggali ba pare non bàyyi ba ma yeggali ba foofu non bàyyi ba ma yeggali nee na bi ngay wax dabuñu la day yokk may ma rek may ma rek may ma rek waaw may ma bul dugg foofu may ma may ma rek li ñuy wax mooy régler leen problème ma ñuy régler problème bu bulan nee ne nee ne bul emporté wu non emporté wu ma non non def loolu rek teeyal rek teeyal rek non teeyal waa teeyal ma ñuy tëj grève teel rek ñu def illimité teel rek ñu def loolu régler leen ko doucement doucement foofu loolu lañ war a régler Serigne parce que bu waxee ne état bi assisté wu leen man daf ma jaaxal yow da nga ñëw nga ni yéen a dem ba am problème ngeen ñëw ne état la ñu bëgg mu jàppale nan lañ leen mooy jàppale ngeen ne nañ defar réglementation bi état bi ne la ay ñu def concertation tëgg réglementation bu bees defar ko virgule yeeg yëpp ñoom ñoo toog di ko changer di def bañ ne ñii do baax na ñoom ñoo ko wax de ñi ngi nii ñoo ne réglementation bi moo leen ci mën a génnee te foofu danaa ci remercier AMIS parce que bi ñu defaree réglementation pare ñu ne lan la ñu ne vulgarisation moo des AMIS financé ko tournée nationale man mi maa àndoon ak ñoom président Gaye ak euh, RBS. ñu def région Sénégal yëpp. c'est région Sénégal yëpp lañ def tournée boobu wax nit ñi législation bi bees bi réglementation bi nii la ñu war a def pour boulangerie bi sàmm outil de production bi bi ñu defee loolu. ñu ne slogan bi ñu yoroon ñoom ba ñuy tourné ñu ne chaque boulanger na jënd benn oto defar juróomi kiosque parce que réglementation bi pour ñu doxal ko mburu dafa war a jóge ci boutique mhm. ci kiosque lañ ko war a jaaye mais mburu mi kan moo koy yóbbu ci boutique bi du ñoom we euh, ñu weesu foofu ñu ñëw débat ci Covid bi non non dafa ndànk rek dafa ndànk rek non dafa ndànk rek parce que ñoom dañu am obligation ku nekk wut benn oto defar juróomi kiosque parce que dafa am rayon boo xam ne yaa ko moom yaa fa war a teg say kiosque di fa jaay ñu daal di ñëw ne état waroon na dolliwaat loxoom ngeen ne lan ñu ne waroon na am fonds boo xam ne état daf ñu koy jàppale DER dañ ne la jeune et femme éligible lu ñu ji biñ toogee wax ak président président ne lan lañ bëgg ñu ne fond bu ne président woo DER ne naka la mun a jàppalee boulanger mu ubbi ligne de crédit financement ñii jot nañ ci ñu ngi nii jot nañ ci. ñaata. nañ ko wax ñoom. DER financé na leen yow mi ko wax kañ DER DER financé de l'État DER baa ngi nii ma yor. il faut il donc loolu nga ne état assisté wu la. waaw tontu ci li mu doon laaj. te amoo ci grève illimité bi boo ban grève bu bu waa Meunier. non mais euh, xam nga nit ki yaa moom sa lan ngeen lan ngeen mën a def kilifa gi. bu la neexee produire su la ah, dafa am entreprise. boo xamante ni dafa am dafa am dayo fi mu toog état. sañ na jël ay responsabilité buru yëngal na dëkk de. ma xamal la moom moom laa koy wax. maa ni la ku wal dégg nga olof wax na ko ku wal mburu tudd dëkk. parce que il faut ñuy toog di ko wax. buraake leen ko ngeen waxtaan. il faut ñu toog di ko wax mburoo mel noonu. non xam nga wax na ko sànq xam nga xam nga man Diallo. ah li li ma li ma li ma. non je je parle à Diallo non dama ni li ma xaw euh, jaaxal mooy euh, mosuma gis jaw nii man wóor na mi di ko yónni xam na lu sax ma wax ko ko parce que tey. bi ñu waxtaanee ci comité des prix ba jàpp ni prix bi mooy dix-neuf mille cent quatre vingt ñu génne comité des prix ñu naan nu xamaguñu naka la ñuy organiser mise en place du prix parce que problème bi c'est pas le prix mais c'est le problème du pain ñu ni ñun mënatuñu continuer di jaayee di perte ñu yónni benn lettre ministère du commerce mu ni nañ ko may parce que ñun dañu waroon au lendemain du comité des prix arrêté dagg liggéey bi parce que dañ ni mënatuñ jaay di perte ministre bi nañ ko may dat trois jours mu introduire sujet bi au niveau de la hiérarchie hmm. pour ñu xam lan mooy décision bi ñu jël loolu indi ñu appliqué mesure bi le mardi tey guléet laa mos a dégg parce que ñun on a envoyé quand même deux amul benn lettre bu ñu bind boobu ba léegi bu ñu tontu tey laa mos a dégg sëriñ ak fi ñu jaar yépp ñu ni dañ ñu laaj ay document individuels pour mën a xam ku ci nekk ñaata la war a jaayee moo tax ma ni dañ ko yónni c'est-à-dire que fi mu dool nii damay yaakaar nii ak li jot xew ci réew mi yëngal bi metti boroom réew mi yëgu ko ñu war a trouver solution moo tax ñu duggal. solution boobu la ñuy wax ndax mun na nekk parce que tamit. non xam nga xam du ñu waxtaanee li ba pare yëkkati fi wax demaat ak. loo xamante ne moom la ñu ubbee man man man jàpp naa ni. Euh, yéen ñi nga xam ni dangeen am seen entreprise. 2S li tax muy dox mooy def ci génn li ñu fekk li tax ñu ne fi. c'est parce que l'entreprise marche parce que mi ngi dox bu doxul woon ñaata organe de presse ñoo ñoo tëj cest à amul fenn fooy dem ci àddina di jënde fukk di jaay juróom cest à am na loo xam ni amaana euh, jarul sax ñu ciy discuter man waxuma sax problème économique mais logique mënoo tey am benn entreprise am lu tolloog mille cent employés di leen fay suba ak ngoon pour ñu liggéeyal la te liggéeyuñu te nga ni da ngay continuer di leen fay xam nga lan ngay mujje xaar leen ñu def chômage technique ba mbir mi bu guddee nga tëj wuti leneen mais loolu la xel mun a nangu. mais nag du loo xam ni du loo xam ni quand même mun nañ ko namm parce que amul benn unité industrielle bu namm arrêté activité am te du jaay ça n'a pas de sens amul xel mënu ko nangu moom mii di wax tey bu fekkoon ni am na butiku mbagg di jaay dara bu toogee ñaari fan gis ni li muy dugal ci xaalis du ko génne am naa yaakaar ni daf ko fay bàyyi wuti leneen waxtaan. non président mooy jël ay maanaam maanaam bu dee bu dee bu dee nii la mooy waxtaan bi mooy du bouger mais. c'est-à-dire man leen rek. foofu lu sew dafa am foofu parce que 19 100 mën ma ñëw ma ah, ñëw. dañu xam nga ñun dañ doon liggéey ci base 2 pour cent marge ñoom ñu xëy rek ne nañ leen defal 10 pour cent. alors dinaa ci tontu may may leen ma rek ma tontu ci. parce que xam nga non non xam nga xam nga man dama bëgg ci plateau bi. ñuy waxante dëgg bu paree. li si seede suñu borom parce que nag ah, ah, lu lépp lu ñuy wax bu fekkee li ñuy wax du loo xam ni wóor na ni wér na amaana jarul ñu ci toog deux lu ko indi benn mooy structure du prix du pain ba mu amee ba léegi dix pour cent brut avant impo la bu impo yi jaaree 33 pour cent dangay ngay dikkee ay 6 et quelques pour cent bi ñu demee en janvier mun naa ko may ni nekk foofu ministre bi moo jonkan ñu ñu dugal leen ci seen loxo mbas mi moo tax bu leen jéem a am bénéfice ci waxtu bi may leen ma ñaari weer. ñu hmm. jëlee ko 10 pour cent indi ko 2 pour cent. est-ce que xel mun na nangu tey un investisseur quel qu'il soit di def structure des prix. di def marge cinq pour cent avant impôt te nga mun a jël sa xaalis dugal ko ci benn compte DAT mu lay jox six soixante quinze. E yow nga yor sa socc nga yor sa socc. RSE fu mu nekk non mais avant sax RSE xam nga dafa am loo xamante ne pour man loolu moom faw ñu jàpp ko ci ci ci waxtaan bi parce que tamit li nga wax day dëgg mooy du ñu bàyyi suñu yitte. ñoo fii di wax ak askanu ngir wax dëgg ngir dépasse situation bi ñuy wër loo ci loo xam te ne war nañ ko mën a wax mu leer man li ma sentir mooy ni su fekkee ni débat yi maanaam waxtaan yi ngeen di seq acteurs yi nii lay demee on comprend pourquoi souvent l'État peine à avoir des résultats ci yu mel nii parce que du secteur bi rek la secteur boo mënti jël on te parle de dialogue nañ ak état mu jàpp ni lii ñu teg ci table bi c'est réaliste et réalisable ñu gis mu def leneen loolu bëri na fi kenn ñëpp mën nañ ko laal leneen li koy li mu mooy ci même ba ci say réponse yi ngay joxe sëñ Diaw li tax ñuy ñëwaat foofu parce que euh, jàpp nañ ni kat ndey mbil lii yéen la bu tagge tembe ci état la bu melee neneen ci moom la maanaam ni ñu sentir ne da nga leen mel ni ñu leen bàyyee seen bopp que léegoo léeg bu ñuy xeex seen biir ngeen ne ña ngay guerre bu xawee ki ngeen gis nga li ñu waxoon absence boobu noonu ci ful la ji ngeen war a am ni secteur bii kat ñun ñoo leen mën a dimbali ci organiser leen wax leen ni yoon wii la ku jéggee ñu sentir ni boo jéggee état ngi fi taxaw ngir ne la du foofu fii la askan wi di sentir ni en réalité am na ku fi taxaw ngir veiller sa à loolu la ñu gisu on a comme l'impression li ma sànq ni da leen échappé à la limite mënatu leen ko organiser le fait que ci circuit bi bi ñu dugalee ni 19000 la ñu nangu ko ne may leen ñu 2 jours wala 3 jours ñu waxtaan ak kilifa gi ni implicitement nangu ngeen lu war a mën a nekk la il faut ñu nangu dara il faut ñu avancer parce que jusqu'ici on a l'impression ñu ngi ñu ngi répété ni ah ñoom de proposé nañ waaye yéen da ngeen ni déedéet def leen nànk bu ñu yokk da ngeen ragal yokk bi ba ngeen gëlëm ci nanguwu leen wax léegi nanguwu leen ñoom li ñuy wax waaye teg ngeen li fi ngeen yem rek mooy ni dindi nañ taxe dindi nañ leen de yem rek ci 16000 yi alors ko ñoom ñu ngi wax ni même boo nangoo ni mu ngi yokk feneen que même bu fekkee yokkute boobu ñii ñu ngi jaay nangam mais nangu nga yokkute boobu am na ah yokkute boobu am ci ñoo xam ñu yëngu ci secteur ñuy ñuy jaay te dañoo accepté woon serrer la ceinture à un moment critique na ko bu ñuy wax ni communiquer dëgg neex yàlla ci yéen nañ koy xaar te jusqu'ici damay gis ni yaa ngi laal des faux problèmes alors que ñun li ñuy wax mooy ni li tagga waxtaan bi bañ toog fii di ko waxtaane war ngeen mën a nangu ay réewén ni am na lu ngeen ci ragal cest à état waru mun a ragal loolu wax dëgg ni fii lañ ci toll gaa ñi may leen ñu bu ñu munee ñu may leen may ñu leen mais pourquoi du ngeen dellu ci askan wi leen fi ñu toll askan wi a nekk c'est-à-dire foofu lañ dul comprendre la réalité mooy gis nga état bi lu jiit njaaga ñoom horticulture bi tamit soble bi ñoom problème mu prix bi conservation ministère commerce la gis nga poids bi doon négocier ak yéen mais mburu léegi lan la benn kilo mburu yow nga mën koo lekk toogaat di laajaat beneen kilo mburu dootul kilo bu ñuy négocier naan la wàññi leen poids bi c'est que bu demee ba nga xam ni nañu xool xale yi seen résultat non yi xale yi ñàkk ndekki bu diis. mburu yi wow yu oyof yi ñu lay jox. mais xale yi a aussi jour état bi nañu yërëm. ñoom dañ leen seen boulanger ci biir ak seen i. que ah, li ngeen yor dafa bari de. dëkk bi yëpp ay jaaykatu beñe lañ ak madeleine. ak affaire yooyu gis nga état du Sénégal mi nag yéen tamit. bu ngeen di négocier su dee état bi mënul de yéen a bu leen wàññi poids bi parce que tamit dañ sonn am na ñoom ni muru rek lañ am di ko poñse di suba bu ñu amul lu ñu gis ñu jël muru bi def lee abu dog dimbali leen ñu ci rek abu doguma la am dama la wax léegi dafa naa da ngeen ma déggul état bi politique bu muy def état bi mooy wàññi poids bi ne leen ñun ñun muru c'est l'état qui fixe le ma ko ci tubaab c'est l'état qui fixe le poids et le prix du pain ñun duñ ci dara ñoom ñu am yaram moo ko jëlee deux cent dix grammes moo ko jëlee may ma état moo jëlee deux cent dix grammes non may ma état la waaw da ngay déglu ñum jaxasawul fëriñ waaw mais may ma xam nga ah, ah. abu ah? état non non non may ma quand même ma wax comité du état déedéet bul ne état yow yaa ngi toog buñ eh, koy fixé may ma yaa ngi toog ñu calculer trouver 0,86 par exemple par gramme ñu ko appliquer ko ta daan ne 190 grammes soo ko defee nii prix la lay jox. yaa ngi toog. mais loolu c'est pas loolu c'est te autour du gouverneur nga toog. non non non non Serigne. acteur yëpp toog. Serigne man maa yor kàddu da may bàyyi ma développé structure prix bi mi ngi nii. métti na de ñoo ci daal amatul structure prix bi mi ngi nii. ñoo ci daal amatul ñu mën a wax ñu mën a wax ci jaay leen ma ko fanweer. le problème mooy loolu. Sénégal ñeenti fas ñeenti xeetu mburu yi ñoo fi dem. mburu 165 grammes à 50 francs. ba ngeen 125 grammes à 100 francs. 190 grammes à 150 francs 230 grammes à cent francs kooku loolu ñun ñëmuñ xëy rek ñun nañ wax nañ ko état bi nañu libéraliser secteur ñun ñu xool mburu bu ñu neex ñu defar ko bu ñu koy jaayee 1000 francs bu ñu koy jaayee 5000 selon ah, poids bi wax nañ leen loolu ne ñoo bañ loolu conseil nañ fi dindi nañ fi mais tamit yéen conseil national boulanger yaa nañ lii nañ mais dañuy proposer aux sénégalais le pain de 230 grammes à 200 francs ministère du commerce dafa dal ci boulanger yi. yéen ñëpp témoigné ko. non non mais loolu arrêté la. doole la ñuy jaay commerce ci Covid bi ci Covid la la ñaata stock ceeb moo am ba mu woo gars yi jënd ceeb. jaay woo leen di leen laaj fu seen stock toll. ci crise boo xam ne say information jox nañ la ko yàgg na. te ministère commerce nag. moom ci boppam ñoo war xoolaat seen bopp ñu génn ne lii non non ñun tey la ñuy doog a woo te dañu doon déglu rek tey boo ma laajee stock yi au niveau national ma mais ceeb dama ne la jaaykatu ceeb yi dañu woo ñu jox leen chiffres yi tous les mardis jaaykatu ceeb yi ñoo yor Sénégal moment bi tous les mardis tous les vendredis am nañu stock yi ministère moom ministre bi buy dem conseil des ministres mercredi ñi ngi yóbbaale stock mais na yokk poids bi wuru bi dañu soog mémo bi dañ koy dafa am li ñuy wax mémo bu ñuy defar tey jii balaa may wàcc vendredi jox nañ ma stock yi mi ngi nii wala stock yaa ngi nii. mëñ yi ku tëj entreprise booy grève de fëri a ngi fi xale yi léegi amuñu liggéey de. non Serigne waxuñu waxuñu problème mu stock tey amuñu problème amuñu wax ba xam ñii dañu leen di nangu seen yokku liggéey lëndi wala askan wi supporté ma la a wax mooy lañ ma a wax mooy état taxawaay bii mu taxaw mooy yërëm askan bi waaw yërëmoo parce que état yërëmuñu état seize millions de sénégalais lañ liggéeyal déedéet une corporation wala da ñoom li état war a def mooy mu encadré leen mu encadré leen ba ñu nekk ci jàmm mën a produire parce que état moo teg condition yi nga xam ni tey moo ñu mën a am sept meunier. léegi bu ñu taxawee nag. ba muy metti moom ba muy metti xam na ne 2005 damay toog nii Ahmed Amar bi ngeen wax toog nii booba gënoon na fi metti merci donc man fekkee naa bu ñu yërëmoon du wàññi poids pain bi. état bu ñu yërëmoon du wàññi poids pain bi. Serigne l'état est là pour trouver des solutions aux acteurs c'est l'état moo war a indi solution ak seen industrie mën a jëm fi ñu toll ñun ñëpp a jaaxle tey jii bu ñu jógee ku jóg ne maa ubbi minuterie wala ku jóg ne maa ubbi boulangerie hmm. li may li ñu yor tey jii ci stock boulangerie yu war a ubbi te pourtant bu ñu waxee ñu ne gisuñu ci seen bopp tey jii bu ñu la ko indiloon fii nga ni déedéet. mais créer dañuy créer emploi. législation bi l'État ne crée pas d'emploi. législation bi qui crée qui crée l'emploi. nguur daal daaneel na dëkk. moo protéger seen unité xëy ñàkk a ndékki génneel na ay nit. ah ñàkk a ndékki parce que bu réglé wul problème mu mëñee. attention doo leen gis mburu Sénégal fi ñu jëm. te woote yi bu jàllee te réglé wuñu problème mu mëñee lëndi mburu du am Sénégal wala mar. ah bon ça je vous le dis. Euh, ba pare ah, assomption bi merci Assane day politique yi. jërëjëf nañu dimbali rek mu régler problème balaa muy campagne yi. Pape s'il te nañu dimbali rek balaa muy dem campagne wax ñu parce que Assane ma ca mbedd ma di campagne rek. nañu dimbali rek mu ñëw régler problème. Serigne Serigne Mara Serigne Mara Serigne Mara def na li mu war a def. balaa muy campagne Assane réglé wul problème yi. taxawaay bi mu war a def ma ngay campagne di parce que parce que d'abord moom moom rek euh, moom mooy liggéey ay technicien la yor Moustapha Diop campagne Serigne Diaw directeur régional du commerce de Dakar nekk commissaire aux enquêtes économiques di remercier également euh, Ndéné Ndiaye euh, secrétaire général bu fédération nationale des boulangers du Sénégal Claude Demba Diop jiite AMIS di association des meuniers industriels du Sénégal remercier également Abou ak Pape Ousmane Euh, li ma bëggoon ngeen tontu ma tontu wala xuloo ngeen ba affaire bi jeex te liyoo man dama bëggoon ngeen jox ma date rek ne bés boobu di ngeen pour waxtaan loolu rek laa bëggoon.